alors Babacar Gaye ñu ngi lay nuyu. Euh, maa alors yow yaa ngi bokk ci parti démocratique euh, sénégalais ñu bëggoon am euh, sa gis-gis ci coow li jógaat ñeel ñetteelu mandat bi ancien premier ministre njëkk ko yëkkati fan yi ñu génn am na ay waxtu itam ministre d'État Mbaye Ndiaye yëkkati ci ay kaddu yow no jàngate wax yooyu yëpp. waaw waxu ñetteelu mandat. wala ñetteel bi nga xam ne président bi fi nekk mun na dem encore nekkat candidat Euh, tàmbalewul ci wax ji nga xam ne maa ngi koy dégg fan yi benn bi jógee ci euh, Mohammed bun Abdallah bun jon mu naan bu doon sagom day ay mandat yi sax kenn du ko limité boo ko seetloo ku mel ni Serigne Mbacke Ndiaye mosoon na wax lu mel noonu. Mm. dégg nañu itam euh, Mbaye Ndiaye muy posé wu ay question ndax question yi mu posé boo ko déggee mooy day laaj laaj boo xam ne mel na ni moom. xam na déjà li nga xam ne mooy tontu bi ndax bu fekkee def naan euh, ndax mandat bi euh, Macky Sall jeexal muy sept ans yi euh, ndax bokk na ci wàññi bi ñu war a wàññi mandat yi président war a def loolu wane ne na déjà moom gëmul ne bokk na ci li ko jiitu boo ko seetee wax ji mu ngi juddu bi président Macky Sall faluwaatee déjà nit ñi commencé nañ ko di ko laaj Eh, ndax da ngay candidat xam nga loolu. Mhm. bu fekkoon ne mbir mi leer na leer leer nañ ci suñu constitution. Eh, kenn du am xalaat du benn journaliste du am xalaat di ko ko laaj parce que dafay nekk lu évident loo xam ne laaj la boo xam ne jarul laaj. Eh, kon dafa mel ni mbir mi dafa desee leer te comme mbir mi niñ ko bindee ci constitution bi ci article vingt sept bi dañoo tàmbalee wax ne mandat bi daal léegi bu président la république juróomi la. waaye kenn mënatul am ñaari mandat yu teglante loolu la constitution bi wax hmm. boo ko seetee dëgg-dëgg ñi nga xam ne seen xel moom dafa màcc jëm ci mu jëriñ euh, Macky Sall pour mu defaat beneen candidat dañuy jàpp ñoom ne comme dañ ne mandat bi cinq la kenn mënta def ñaari mandat ñoom dañoo jàpp ne ñaari mandat cinq ans la ñeneen ñi dañoo jàpp ne euh, président Macky Sall ci boppam bi muy def référendum bi Boun Abdallah Dionne nekkoon ci directeur de campagne sey Seydou Guèye nekkoon ci porte parole APR ñoom ñëpp seen wax boo ko daan dégg mooy nañu wote constitution bi ndax buñ ko wotee benn président dootul am sañ-sañ defaat fii ñetti mandat waaye biñ demee ba ci biir ñu laajaat président Macky Sall mu naan euh, du ma waaw du wax déet loolu mel na ni mbir mi da ko bàyyee ñi nga xam ne ñoom la euh, soow li coow li soxal mm. en réalité coow li ñan la soxal ñi ci jiitu mooy waa APR yi nga xam ne jàpp nañ ne 2024 bu ñu amul président Macky Sall mun na am ñu ñàkk nguur gi waaye itam soxal nañ ñi nga xam ne ñu ngi biir APR bëgg ñoom it nekk dara parce que jàpp nañ waxoon nañ ko ñoom ñu dégg leen euh, ne président Macky Sall jeexal na mënatul am beneen mandat ñooñee boo seetloo waa APR ñu ngi leen ñu ngi wax dañ leen traître lañu ñu wax ne dañu bëgg a euh, maanaam ànd président te waafal seen bëgg-bëgg. ñenn yi sax dañ leen sanctionné ku mel ni Sori Kaba. waaw kooku sax moom dañ ko sanctionné. Hmm. waaye am na ñoo xam ne dañoo ñoom yëkkati kàddu wax lu jëm ci mbir mi waaye dañ ko wax lu xam ne dafa arrangé président en terme de dafa am ci biir APR ñoo xam ne ay traître lañu biir APR dañ ci nekk suul seen jaasi ci biir partie bi bëgg bu mbir mi yegsee ñoom ñu bàyyi Macky sal pour nekk candidat. ñooñu suñu leen di attaqué ça veut kenn bëggul keneen nekk candidat ku dul Macky Sall. waaye nag eh, ñooñ tam ñi nga xam ne engagé wu ba pare li wóor ba wóor mooy dina métti ci biir APR ñu dem eh, am beneen candidat boo xam ne dina leen fédéré ñoomu neen ndax duñ parti boo xam dañ ko structuré ba xam kan moo nekk lan. ken ku nekk am na bëgg-bëgg ñu ngi tudd ay Matar Cissé ñu ngi tudd ay Mimi ñu ngi tudd ay Abdoulaye Daouda Diallo. ñu ngi tudd ay ngi tudd eh, ñu bëree bëree bëri. Hmm. kon mel na Euh, sabar gu tas lay xaw a niru fi ñu toll. opposition bi tamit boo ko seetlee dëgg-dëgg ñoom seen biir euh, ñu ngi engagé débat boobu dafa mel ni dañoo ragal a jàkkaarloo ak Macky Sall gis nga man dem ay élection naan kii warul nekk candidat. Hmm. boo ko seetee dëgg-dëgg c'est parce que amagoo moyen yoo gañee kooku. Hmm. li war ba war mooy opposition bi tey mu organisé wu moom c'est vrai war na défendre li nga xam ne mooy intérêt am mooy. bu ñu gëmee ne constitution bi li mu wax mooy warul am troisième mandat ñu organiser wu pour que loolu du fi amee. waaw pataaral gi justement ci opposition bi noo ko jàngatee. dafa doy waar foofu lay waxee ne waroon nañ ñoom tey débat bu mel nii ni ko xam ne ñoom la ko opposition bi defee woon ñoom Tanor Dieng na ko yàlla yërëm ñoom Amath Dansokho yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Moustapha Niass ñoom Alioune Tine ak ñeneen ak ñeneen kuréel gi ñu sampoon M23 xeex li nga xam ne moo doon troisième mandat Abdoulaye Wade dafa mel ni ñii ñoom préparé wuñ pour def loolu. Hmm. li ko waral nag laa xamul nan la. mais boo ko seetee dëgg-dëgg ñun bi nga xam ne mooy suñu parti di parti démocratique sénégalais yaakaar naa ñu loof lool ci engagé ay argument pour teg ko ci table ji ndax Macky sal du fi am troisième mandat li ko waral mooy li dab APR daf ñoo daloon en 2011 2012 mooy am président xam ne bu bu nekkul candidat ñàkkul ñun dañu ñàkk nguur gi. Mm-hmm. insister pour président nekk candidat donc tey amoon nañ ay arguments juridiques pour défendre loolu. Mm-hmm. est-ce que tey ñun dinañ am yeneen argument contraire pour mën a xeex Macky Sall ci troisième mandat kooku c'est une question importante boo xam ne. jàpp na ne PDS de manière officielle war na ci jël position. d'accord loolu aussi euh, euh, day clarifier jeu bi mais en tout cas de cause conseil moom moo jël décision mais nit ñi xam ne même bu conseil constitutionnel jëloon décision tey ne Macky Sall war na dem troisième mandat politiciens yi ñi ci ëpp duñ ko nangu li muy jur pour askanu Sénégal kenn xamul lan la. yàlla nañu yàlla musal ci li fi xewoon 2011 2012 bu fi amati ci a affaire mandat affaire ay dem élection affaire wax waxeet loolu daal man yéene ko Sénégal te bu doon sama sago duñ ci yegg. d'accord alors mais politiquement soo xoolee est-ce que euh, jàpp nga ne Macky Sall mi dafa bëgg a dem euh, ci beneen élection 2024 bu ñu xoolee nii wii nii non bi mu waxoon ak xëy na ñi jot a wax ne amul droit dem maat euh, wuti baatu askan wi te mu sanctionné leen maa ngi tudd sànq Sori Kaba. man pour man jàpp naa comme parti lañ la ñu nekk. newoon na bu kenn waxati ci yooyu. ku ci wax yaakaar naa yow yaa jàppal fii seen sartu parti. waaw ñi ciy wax tey naan am am na droit te waxu leen dara. ñooñu foofu lay waxee ne. Hmm. ñu ngi commencé wax ñoom bi président ne nii wii nii non ñoom léegi ay wii la ñuy wax ñu ci bari c'est comme si aujourd'hui doute boobu président Macky Sall teg ci askan wi. Hmm. ñoom dañ ko bëgg a utiliser mu nekk dëkk maanaam ñu ne ah kon président bëgg na. wii la comme président bëgg na ñu ñoo ñañ ko jañ ci bëgg bi. Hmm. xam nga politique li ci garaaw. mooy en général leader bi du nekk euh, libre il dootul am moom boppam. day nekk day nekk genre prisonnier ci système bi mu nekk. Mhm. ba tax du bàyyi système bi parce que système bi bu ko bàyyi day écroulé wu boo see Macky Sall bëggul kenn wax ci mandat bi mhm. wóor na ko wóor yàlla boo waxoon suba suba ne du ma nekk candidat affaire loolu moom aussi nañ ko ko nangul su waxoon demee demee ne nekkuma candidat. dama ne APR tas soo xam ne aussi damay nekk candidat ci biir APR da nga ci ñoo xam dañuy jóg taxaw ne ko ah yaa waxoon nekkoo candidat mm. comme ñoon loolu nga wax ñun bàyyi nañu dañuy nekk utali suñu bopp mm. kon c'est un système très difficile pour lui il faut le comprendre dal nag ku ne waaye nag nañu xam ne suñ constitution ni ñu ko bindee mm. ni ko bindee moo baaxul ni ko bindoon bind bi nga xam ne moom moom laa proposé woon en 2016 def disposition transitoire ne mandat bi nga xam ne mooy sept ans day bokk ci mandat yi ñuy compté buñ ko ci bindoon kon tey benn coow du am. d' accord alors ñu wax ba tey euh, ci lu jëm ci euh, élection ak euh, yu ci aju dil bi ñuy wax diggante Macky Sall ak Idrissa Seck gëm nga ko. non non non franchement ay ree la ma def li tax mooy gisuma ban deal lañ mën a def budul Idrissa Seck nekk président Idrissa Seck nee na moom amatul benn poste bu mu bëgg ci àddina budul nekk président de la république. Macky Sall moo fi nekk fii ak quatre ans mooy nekk président de la république hmm. xanaa i diggante fii ak quatre ans du wàcc moom jox Idriss Seck pour mu toog ak fu muy jaar ban réforme constitutionnelle lay def ba Idriss Seck mën a nekk président loolu ñi koy wax pour man euh, dafa amul amuñu argument politique deuxièmement waay waay waay nañu bàyyi ku nuyu président Macky Sall rek ñu ne da ngeen nekk en deal Ablaye Wade euh, président Ablaye Wade nuyu na fi président Macky Sall Massalikul Jinaan ba yëkkati mais est-ce que diil am na sinon konoon du ngeen gis li xew Genève xew kon du ngeen gis situation bi parti démocrate sénégalais kon nekk du ngeen gis Karim Wade continuer nekk situation bi mu nekk euh, ñun nuyu nañu man nuyu naa Macky Sall barki démb ci dialogue national. Mm. bi muy recevoir ak comité de pilotage est-ce que dafa tax ma nekk APR. kon ñu bàyyi président dajeeg nit ci jaal dëj boo xam ne sa norien na ko yàlla yërëm lañ ko organiser mm. mu daje fag la classe politique foofu buñ fa waxul lu lu lu rafet lan lañ fay wax. buñ fa joxantewul ay teraanga ci nuyuwante saaxuwante luñ fay def keneen ku fa def leneen Sénégal jéggi d'accord ñu wax ci dialogue politique bi ni muy doxee pour man de fi ma bokk. ci bi nga xam ne mooy décentralisation wàllu gox-goxaat yi ak beneen bi nga xam ne commission modernisation naka la ñu fexe ba soppi nguur gi pour mu gën a mucc ayib que ñu mën a gën a xeex ger ñaari commission yi liggéey bu rafet rafet rafet ñu nga fa koy def te incha allah ci fan yu néew da ngeen gis. Ah, fi ñu ci toll ci ay euh, proposition de réforme yoo xam ne dinañ ko apporter euh, réew mi. Hmm. Euh, maanaam nag dialogue politique bi ñuy wax maanaam commission politique bi bokk ci dialogue national te ñoom ñu commencé woon seen dialogue ak ministre de l'intérieur yàgg na ñu am seen i charte bopp ñu organiser woo nuñ organiser woo nuñ composé woo ak seen i procédure bopp ñooñee ñoom mardi la ñuy réunir yaakaar nag alxames danay dégg ay coow nag li ci mujj mooy bërki démb ñuy wax affaire ay chef de parti hmm. ak euh, président la république ñuy wax affaire ay amnistie Karim Wade ak ñoom ay Khalifa Sall ak ay Guy Marius Sagna hmm. ñuy wax affaire ay démocratie ay droits de l'homme ñuy wax affaire fiche électorale yooyu di wax naka la ñu élire maire ñun bokkuñu ci ñun ñi nga xam ne dañu mujj bokk ci dialogue national bi hmm. ñoom nanguwuñu kenn ci dugg ci commission boobu comme ñoom ñoo ko wax seen biir seen biir lay xewee ah maa ngi ñaan yàlla ñu juboo ci seen i kàddu parce que de toutes les façons su juboo amul président Macky Sall du mettre en œuvre li nga xam ne mooy décision consensuelle yi. Mm. léegi nag ñu ngi wax affaire euh, maanaam euh, maire de Dakar boo ko seetloo. mais dialogue national bi. amul benn yoon bu ñuy dox débat lu jëm ci ay maire de Dakar commission bi yor décentralisation. Mm. ak territorialisation bi politiques publique man maa jiite la sous commission. bi nga xam ne mooy mécanisme de gouvernance du développement territorial Adama Diouf moom mu jiite la commission cadre d'impulsion de la décentralisation xam nga kon waxaguñ ñun foofu lu jëm ci ay maire maire yi ñi fi nekkoon ñoo fi ne mm. par contre foofu mun naa ci wax loo xam ne peut-être xalaat la yu juddu dañu jàpp ne Sénégal ni mu bindoo nii bi ñu tasee région yi dafa am problème mu équilibre territorial mm. te am na ay territoire yu judd yoo xam ne réalité la ñuy nekk au plan maanaam géo écogéographique kenn werantewul tey ne li jógee Dakar plateau ba ba ngay yegg jam ñaajo continuum la maanaam day wéy di continuer benn benn benn dëkk la dëgg loolu dëgg mm-hmm. pourtant benn dëkk bi mm-hmm. am na mairie Dakar am na mairie Pikine am na ci mairie Guédiawaye am na ci mairie Rufisque am na ci mairie Sangalkam am na ci yeneen maire am na ci yeneen maire te mu nekk benn territoire loolu bañ ci réfléchir erreur la bañ réfléchir ci mbuur ni mu constitué tey diggante ba ngay jógee Somone ba ba ngay jàll Saly ba ba ngay dem euh, euh, Ngering mais loolu aussi bañ ci réfléchir erreur la mm. li xew Casamance muy benn région bañ ci réfléchir erreur la yooyu ñu ngi ciy xalaat mais kan waxul ne buñ doon def sax maanaam un grand territoire mm. maanaam un pôle territoire moo xam un pôle métropolitain wala moo euh, un pôle périurbain dañuy supprimer commune kenn waxagul lu mel noonu. Mm-hmm. kenn waxagul aussi dañuy fal ay maire par décret am ko fii kon débat boobu ñi koy def aussi bon pour man euh, voilà dégg rek teel nga ne matt ga damm na la. Mhm. mais nekkul une réalité en tout cas au sein du dialogue national. d' ba laaj bu mujj bi mooy euh, lu soxal li ñu doon wax sànq nekk njiitu réew nekk euh, njiitu parti loolu yow lu ci sa position. sama position personnelle mooy man bu doon sama sago président de la république du nekk chef de parti ndax président de la république moom mooy maanaam kii ray ñëpp mooy clé de des institutions moom moo Euh, maanaam parti politique yi institution la ñu moo war a féetee justice bi institution la assemblée nationale institution la conseil économique social environnement institution la euh, société civile bi sax mun nañu jàpp ne léegi institution la président de la république dafa nekk ci kaw nekk ndey seex bu nekkee chef de parti buy xalaat lu baax ci réew mi da ciy jiital partem bu war a jàkkaarloo ak beneen parti fekk mu bokk ci parti politique day faral partem loolu war nañ ko war a seet bu baax a baax a baax euh, président daal jàpp nañ ne bu xasee ba nekk président de la war na bàyyi partem keneen yor ko su demaatee bëgg a nekk candidat deuxième mandat su ko partem wóoloo mun nañ ko investiraat organiser waat pour falaat ko parce que moo xew France. moo xew beneen réew yu baax. réew yu baax yëpp ku ñu fi fal président da ngay sa parti jox sa secrétaire général mu yor ko loolu terewul maanaam eh, nga nekk kilifteef politique. bi nga xam ne yow yaay légitimité politique wu sa parti politique. Mm-hmm. waaye nag nekk chef de parti bi nag di dàgg sant ak yeneen chef de parti yi loolu yaakaar naa ne du jëru président la république. war a àttali am foo bien sûr parce que chaque fois li indi coow li dëgg-dëgg mooy tey Kora ci jëbali sa kanam mu dëll loolu la war a wax. Mm-hmm. Euh, Macky Sall tey lépp lu muy def. mu njëriñu parti politique affaire la ciy jiital. jërëjëf Babacar Gueye ñu ngi lay gërëm fàttali ni yaa ngi bokk ci parti démocratique euh, sénégalais. ak mouvement suqali soppi di ko ci boole. <laughs> suqali soppi voilà <laughs> jërëjëf amoon nañu mbégte dalal ci matinalu réew mi FM.